loolu waxlul xuqdatam min lisaani yafqahu qawli barke borom Tuuba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñun dañu seetaan ci seen télévision bu mag bi di Assalaamy TV waaye dañu bàyyi xel itam ci seen rajo Assalaamy FM 99 point fii ci Touba. seen bokk taalibe Fallou Galass Syll ñëwaat na ci seen émission bu mag bii di jataayu mag ñi ñu fas ko yéene ànd ak yéen sëriñ Abibou Thiam nekk ci wàllu xarala gi ñu leen di nuyu nag nuyoob lislaam di jiital ci nuyoo boobu ki yàlla teg ci bopp yoonu murit di cheikh Mouhamadul Muntaxa ibnu cheikh Mouhamadul Basir ñu ñaan sun borom gën a guddal aw fanam te gën a dolli ak wéram ba mbooleem naal yi mu naalal lislaam fas ko yéene liggéeyale cheikhul xadim suñ borom bàyyil ñu ko fi ba yépp mu àggale ko te ñu ànd ko ak moom di nuyu ak a njabootu sëriñ Tuubaa gépp waaye di ko jaareel nag ci sëriñ Sidi Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ bi waaye mu jaar ci rakkam yi nga xam ne moo yore seen kàddu di as cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdoul Khadir yal na leen yàlla boole taxawu te sàmm leen te sàmm mbooleem njabootu sëñ Tuubaa gépp sàmm mbooleem lislaam yëpp di nuy ak siyaar sunu bunt ci yoon wi di alhaaji maam Cheikh Anta ibnu cheikh Mouhamadou Roqeya di ñaan sunu borom mu gën koo dolli ak wér ak fan bàyyil ñu ko ci kaw suuf ba mbooleem luy mébét ay mébéti waay juróom sunu borom bàyyi ko fi ba mu àggale ko di nuyu di siyaar sëriñ Abo Mohamed xalifatu Cheikh Mohamadul Maamoun di ko ñaanal yàlla taxawaay bi mu taxaw wuuti ci ay magam yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba mu àggale yéeneem ci barke Cheikhul Xadim mbokk yi maa ngi nuyu boroom ëtt bi nga xam ne ci lañ tàbbi tey di sëriñ Moustapha Gassama sëriñ Moustapha Gassama di jëwriñi sëriñ Jibril Gassama sëñ ji Jibril Gassama doonoon taalibe yu mag ci taalibey sëriñ daam abdourahman loo doonoon jàngalekatu alquran bu mag di nitu yàlla ku fees dell ak maqaama ak wilaayatu waaye di taalibe boo xamante ni bi daa jeexoon takk sëriñ daam abdourahman loo waaye doonoon it nitu alquran koo xam ne dereetam lépp alquran la woon ju sell kon maa ngi nuyu sëriñ moustapha gasama di jaarale nuyoo boobu ci sëriñ abdu Gassama moom sëriñ Cheikh gasama ak mbooleem njabootu sëriñ Jibril Gassama gépp waaye di nuyu ak siyaar euh, sëriñ Fallou ak mbooleem njabootu sëñ Daam Abdourahman Lo gépp maa ngi leen di nuyu di leen ziar bokk yi ñu fas yéene fàttaliku nitu yàlla ku mag koo xam ne dañu wax ne fàttaliku nitu yàlla hinda sikri saalihin tansilu rahma boo fàttalikoo nitu yàlla dana tax sun borom bi wàcce yërmande yàlla ci kaw suuf te ñu wax ne ku taarixal wàlli yi itam danga mel ne ku ko dundalaat te kii ñuy bëgg a waxtaanee mbokk yi àdduna mënu koo fàtte waaye danañ ko fàttali mag ñi waaye jàngal ko gone yi bañ xam ne lu baax naka jëkk ma nga fam nekkoon te yàlla cëram yi xàmmewu ci aw sant xàmmewu ci aw tur mi ngi ci xam rek ci ku ko liggéeyal mu fay la. yéen a ngi déglu. Euh, sëñ Jibril Gassama. ñu bari dégg nañ aw turam ci daaron alimul xabir muy ndaam kër sëñ ndaam Abdourahman Lo mu àndoon ak moom daan ko jàngaleel alquran moom sëñ Jibril nag boo bëggee ñëw ci taarixam laata ñuy waxtaane mooy kan ak jikkoom ak ñi jaar ci loxoom. moom mi ngi gane àdduna ci atum 1889 1889 kon boo ko xoolee da ngay xam ne ca mag ña la bokk ndax 1889 fekkagut Sëriñ Tuubaa dem ci géej gi kon du sorente ak ak mageel ñu mel ne Sëriñ Moudou Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Fadal ñi nga xam ne ñooy taawi Sëriñ Tuubaa yi moom mi ngi gane àdduna ci dëkk bu ñuy wax Kër Madaaro Kër Madaaro yaakaar naa ne ñu bari xam nañ ko waaye nag mag ñi xam ngeen naka jekk dañ daan tuxu ak a tuxuwaat ndax di rawale seen diine ak di rawale seen lislaam mu julloo juddoo it nag ci ñaari loxo yi nit ñu sel di mbokkum sëñ Abdourahman Lo mi nga xam ne ci loxoom la mujj itam moo ko jàngal way juróom góor mi ngi tudd sëriñ Ahmadou Absa Ndiaye sëriñ ab sa gasama waaye ñu gën ko di ko dàkkantale ci santu yaayam mu di sëriñ Ahmadou Absa Ndiaye sëñ soxna Absa Ndiaye moom mu nga xam ne moo ko meññi mi ngi bàyyi ko woon ci njaayeen gi nga xam ne moo nekk fii ci wetu tey ba cekkeen tey njabootu sëñ Dame Abdourahmane Lo sëñ Abdourahmane di mbokkom ñooñu moom it jóge foofu mu seq ko ak soxna su sel moom itam su bàyyi ko ci néegub alquran bàyyi koo ci néegub wilaayatu bàyyi ko ci néegub borom xam-xam di soxna Aysatu Taal mi nga xam ne moom it ay maamam ñoo bokk ak sax Omar Fuutiyu Taal mi nga xam ne moo njëkk a xamle sëñ Tuubaa ci dëkk bii di Mbàkke Bawal kon mu ngi judd ci néeg bu sel di néegub alquran di néegub ay gor di néegub ay jullit waaye di néegub ay niti yàlla suñ borom it dogal mu jàng alxuraan ba ni way juram génne àdduna magam moo ko indi ci loxol maam Thierno Ibrahim ma moo ko indi ci loxol borom ndaam di sëñ ndaam Abdourahman magam jooju tudd maam Thierno Gassama nga xam ne kon moo ko indi ci loxol sëñ ndaam Abdourahman fekk siwaat waat mbokkam wax ne bi mu fi ñëw bu alxuraanam aggut itam sori na waaye daal ci la ñëwee ci sëñ daam Abdourahman Lo boole fi àggale alxuraanam ak jàng xam-xam jàng na ci loxol maam Thierno Ibrahim borom daarul Moxti am na téere xam-xam yu mu ko tëralal am na téere yoo xam ne sëñ daam moo ko ko tëralal ak yeneeni borom xam-xam ñu mel ne ay sëñ Mbàkke Buso ak ñeneen jàngal nañ ko xam-xam ba alxuraanam gëndaloo ak xam-xamam. ndax xam nga jamono jooju kuñ teg ci loxool sëñ daam Abdourahman Lo jàng rek ngay mën a def loolu moo tax njàngam teel a bënn tamit nag boroomam xel te yitteem yépp mu defoon ko ci njàng moo tax mu teel a am xam-xam lool teel a man alxuraan ba noppi nag doon ku teel a sàmm wax nañ ne li ñuy wax yëfi ndaw jaariwu ci loolu sax moo ko mayoon xaas ju rëy ci digganteem ak mag ñi nga xam ne sëñ Touba moo leen yar ku mel ne sëñ Ndam Abdourahman Lo ku mel ne maam Thierno Ibrahim borom Daarul Moxti ku mel ne sëñ Mbacke Bousso ak ku mel ne sëñ Mut Dem ak ñu mel ne ñooñu wax nañ ne ñu ci baree baree bari jaxasoo na ak ñoom te dara waralu ko lu weesu setug loxo ak bari xam-xam ak ay teggin sëñ Ndam mu joon ko def ndawam ci mbooleem mag ñooñu nga xam ne ay niti xam-xam lañ noonu lay doxee sax ba yàlla dogal sëñ Ndam. bi mu gëstoo nag ba xam ne li mu bëggoon lépp suñ borom defal nag ko ci sëñ Jibril Gassama mii mu wuutal ko ci daara ji nag ci doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi ko koy jox tam war leen a jàngalal boppam ci loxol boppam te xëy na ay atam sori na booba mu ne ko nag da ngay nekk jëwriñu daara ji loolu nangu nañ ci suñu sunu jur ndax jaar na ci loxoom mu wax nañu ne moom jamono jooju sëñ Jibril Gassama moomu am na nawet boo xam ne sax nawetut ndaam dañoo dem tey ba cekkeen fa lañ dem mu ànd ak dongo yi foofa lañ jàng ji foofu lañ defe nawet yi booba mën nañu wax ne ku mel sëñ Modou Rokhaya mu ngi àndoon ak ku mel ne sëriñ Amidoun ñu bokk sëriñ Modou Mamoun nee na fa fekk sëriñ Cheikh euh, Fall Baye Góor moom sëñ Modou Moustapha Fall lañ fekkit sëriñ Modou Aminta Fall moom sëriñ Modou Moustapha Fall ak seen jëreen rakk nee na booba ma nga fa waaye booba nee na it sëriñ Murtada mii xaadimu rasul moom sëriñ Touba mi ngi ci loxo loxoy sëñ Jibril gasama sëñ ndaam soññe ko lool ci am njàngam wax nañ ne it ne euh, ku mel ne sëriñ Saaliwu moo leen fa jiitu jaar na ci loxol sëñ Jibril donte yàggu fa ak mel ne sëñ Abdou Khadir ak ñeneen ñi mel ne moom ay boroomi wala boog ay niti yàlla ñu bari jaar nañ ci loxol sëriñ Jibril gasama booba wax nañ ne sëñ Jibril maanaam. li koy wër ci ay donga mu leen di teel bu guddee da ngay jàpp ne kii wërta mën a teel ñëpp ne lu gàtt-gàtt eh, juróom juróom benn danañ ko wër kenn ku nekk di tari te ñoom ñuy tari da ngay yëg ne moom mii ci boppam mi ngi tari alquran waaye sooy sooy ruube benn yoon wala ñaari yoon nga dégg mu ne su ko defee bu joxaree nga xam ne yow moomu la du tee du tax kee taxaw mm, nee na sax boo taxawee dalay xaddamiku ne la wéel nga xam ne dalay wan ne la sa continuer du teem a xam li may li may contrôler loolu moom man alxuraan ak maîtriser ko ak dégg ko dëgg mooy maye loolu nga xam ne lu ma juróom-benn nit wër la ñëpp di tari di ay gone nga boole ko yow ci sa bopp ngay tari ca ca yaar ki ngay téyel sam xel daa war a ne ci moom yow miy tari li ngay tari sam xel da caa war a ne waaye nga xam nga ne boo defatul sam xel ci li ngay tari mooy wane ne saw làmmiñ mokkal na ko bu sam xel demul rek nga fëtt wala nga nga gag waaye boo fekkee ne nag dafa mukk ci saw làmmiñ ba boo bàyyee saw làmmiñ lu mu wax noonu la ci alquran loolu mooy tegtale ne kon mën ngaa tari ci fanweeri isib te du tee ngay déglu kii ndax sam xel ci moom lay ne xel mi nag di daw ci juróom-benn ñooñu kenn ku ci nekk soo gaggee dana la gàgganti soo rungee dana la arrêté soo juumee dana la du noom na kooku moo di sëñ Jibril Gasama ci wàllu alquran wax nañu it kenn mësu koo gis moom sañ Jibril daanaka mu dox ñuy wax noppalu noppalu su nee ci téere ba di jàngale du ko yàqal ci lépp lu mu war a def nee na it ku ku yàlla dimbale woon la muy nit ku set ku set wicc koo xamante ne bii nangu dara lu tax lu ko jege wax nañu sax ñoom ñi yaroo ci këram aw sagar walla bant kenn du ko nangaaw gis nee na du xëy gis bant wala aw wala luuru mbalit du daw ko nangoo gis lépp da daan set nee na daara ji da daan set wicc dara du ko jege kon ku yàlla dimbale woon la nitu yàlla daale day set ad nasaafatu min al loolu bokk na ci sëñ Jibril noonu la nekkee ak sëñ daam yoral ko daara ji yor léppam nee nañ am na benn bi sax moom sëñ Jibril moomu ci toxal gu mu wax ne tawat mas na ko daane tawat su métti soo xam ne e, sëriñ Abibu mii nga xam ne moo doon doomi sëñ Mbakke Kajoor ñëw na seet si ko ci tawat soosa nee na bi mu ko seet see ne ko ah yëf yi de métti na mu ne ko waa métti na de waaye man damaa bëgg nga xam ne eh, sëriñ Abibu defuma yàlla lu may ragalee faatu fa ma jëm ragaluma fa dara bëgguma yit gudd fan ngir laneen lenn rek laa am xemmemteef mooy suñ borom bàyyi woon ma fi ba ma am doom tudde ko sëñ Tuubaa ba noppi mokkal alxuraan jooju xemmemteef képp daa xam ne bu ma gaawee dee daal duma ko am nee na sëñ Abibu bi mu déggee loolu ci pas-pas bu réy bi am doom tudde ko sëñ Tuubaa ba noppi mu mokkal alxuraan ñaari cër la turu sëñ Tuubaa yi ab cër la alxuraan ji aw cër la nee na sëñ abi bu dafa fab loxoom teg ci boppam di jàng loo xam ne kenn déggu ko di jëm ci ay tànkam nee na mu noppi na ko loolu suñu borom dana ko dogal loolu moo tax e, sëriñ sëñ daam bi mu tolloo ci dencal ko dafa fab turandoo soxna ami Cerno soxna ami Mbàkke mi nga xam ne jigéenu maam Thierno woon tan joxoon ko sëñ daam Abdourahman Lo te muy maam sëñ mbaki Madina ak ña ca aju ñëpp euh, turandoom wu mu yaral boppam la sëñ daam fab jox ko ko moom moomee moo meññ ab taawam bi nga xamante ni bii lam ca bëggoon sun borom subhaanahu wa taala defal na ko ci yëmut ci loolu it moom doonutoon ci boppam dara xamutoon ci boppam dara mbooleem ku ñëw ci këram rek di soxna sëñ daama xool ba mu jaadu mu mu mu mu doon ku taq ci moom it nag ci deret wala ci meen mu fab ko jox ko sëñ Jibril ndax xam ne ne aw jiw boo ko bëggee da nga ko yóbbu ci àll bu bu baax te bàyyi nag ba mu taw nga mën faa wut gàncax gu baax loolu moo taxoon lu ëpp ci ak njabootam moom sañ daam ñu mu bokkal cekkeen tey ba cekkeen ak ñu mu bokkal mam maharam mu fab ca jox ko sëñ Jibril Gasama ba ñoo meññ ak njabootam loolu dox na diggante sëriñ abibu ak sëñ jibril gasama sëñ jibril it doon na koo xam ne euh, ci alquran ni ma la ko waxee njabootam gépp ci alquran la leen am loolu sax waxal na boppam ci ne sëñ daam abdourahman loo day wax na ma ne li ko booleeg sëñ tubaa moo ma booleeg moom nee na sëñ tubaa alquran moo leen boole man miit nag alxuraan moomu booleeg sëñ Ndaam Abdourahman Lo kon day mel ne yàlla dafa fayee sëñ Jibril sëñ Touba sëñ Touba it yàlla da koo fayee sëñ Ndaam Abdourahman Lo ndax sëñ Touba daa amoon yéene toog di jàngaleel boppam te natt bi ko suñ borom teg mayu ko mu mën a toog di jàngale waaye sëñ Ndaam wuutu ko ca njàngale mooma ba lu ëpp ci njabootu sëñ tubaa gi moo leen jàngal loola it la yàlla defal sëñ Ndaam ci sëñ Jibril Gassama ba bi mu demee magam walla ay ni daa ni jamono ndem mayatu ko ni mu war a taxawee daara ji mu taxawe ko mu nekk superviseur waaye bàyyi nag sañ Jibril Gassama muy wéyal liggéey bi di ci dox dox yu am solo loolu bokk na ci li dox diggante sëñ Jibril Gassama ak sëñ Daam Abdourahman Lo mu doonoon it koo xamante ni bii mbooleem njabootu sëñ Daam Abdourahman Lo gi eh, fonkoon nañ ko sama wayjur nettali na ma muy Cheikh Ahmadou Sill yal yàlla dool li ngërëmul yàlla ci moom euh, bu la bo boo ko gisee rek bu lay nettali sëñ Jibril Gassama da ngay mel ne yow sëñ Jibril ngay gis ndax nam mel wax na ma ci làmmiñam na ma bi ñu nekk ci daara ji sëñ Abdou Samatum sëñ Touba jaar na ci sëñ Jibril Gassama nee na ma sëñ Abdou Samat ñoo fa nekkandoo woon ndax maa moom soree ci ay at nee na ma bindaam di lakk. booba maam xari mbar ma nga fa loolu soxna maam xari nettali na ko maam xari mbar sill mi wayjuru euh, sëriñ Abdou Samad di sunu lépp nee na bi daaru alimul xabir di lakk booba sëñ Jibril Gasama moo leen di jàngal nee na bi bi bi sawara si dëndoo euh, maam xari nee na dafa daw ci ci taal jàngu bi la ma fekk rek na ma caq daal di may fob boot ma te booba sëñ Abdou Samata nga fa ak ñeneen ak ñeneen nee na xaw ma fu ma rawale waaye naal bi lakk gi jeexee damaa dégg nit ñëpp di soow naan na Xari Mbar de li mu def kenn mosu koo gis bàyyi fi sëñ Abdou Samad dem jël Seex sil bàyyi fi Abdou Samad dem jël Seex Sill nee na ñu di ko wax ba sëñ daam dégg ko daal di woo sëñ Jibril Gasama ne ko wool ma soxna Xari nee na mu ñëw gisanteeg soxna maam Xari mu ne ko eh, damaa dégg nit ñi wax ne bi mu lakkee da ngaa fab Seex Sill fi bàyyi fi Abdou Samad mu ne ko waaw waaw Cheikh Sylla man dong la fi am Abdou sama nag ñi fi nekk ñëpp waa kër sëñ waa kër baayam lañ duñ ko bàyyi muy lakk ci sawara wi allahu akbar ñooñu ñoo xam ak bokk te man koo rafetal eh, loolu dox na ay yu am solo ci diggante sëñ Jibril gasama ak sëñ Daam Abdourahman Lo moom moom sëñ Jibril ci ak sàmm moom li ma la waxoon léegi ci ak sàmm moom ak ak wattandikoom ak wattandikoom am na lu ko mas a gaar loo xam ne lu doy waar la mooy daa seen nit di ko woo jigéen la ndax da koo tegoon soxnaam bi mu ko wooyee nga xam ne ndaw si dégg na kàddoo mu wuy si ko sëñ Jibril xool ko du soxnaam mu balu ko àq na ko dama laa tegoon diw waaye gis nga yëmut ci loolu xool gi mu ko xool ak woo gi mu ko woo bi soxna si demee xorom la jël moom sëñ Jibril xorom la jël def ko ci bët yi toxuñ ko ci bët yi ngir lan kafaara gis gim gis loo xamante ne bi nee na araam na ko allahu gis gim gis loo xam ne araam na ko moo tax mu jël xorom doon ko toxoñ ci bët yi te loolu yëmu ci defaat na lu ko raw defaat na lu ko raw ndax amoon na xaal ju toll ne lii mag ñi di wax ne danga daan gis ko ko xaalu ci sëñ Tuubaa wala ko xaalu ci waxtaanu yàlla wala xasida yi ba mu yàgg mu jóg di daw ci siiñum sàkket wi wala mu fekk satala koy baax mu jël ko naan loolu sañ Jibril Gassama ku ko xam-xam nga ko ci moom su ko ab jëllam masaaj dikkal taal jàngu bi nga xam ne sawara waa ngi tàkk ci lay taxaw te bu ci taxawee ku yàlla bind mënta tee ngay dégg baatab alxuraanam ba dana tari ñaar fukki isib bala fanweeri isib loolu gis nga fan la ko jëlee mooy ci jëllub yàlla ci jëllub yàlla moom sëñ Jibril dafa am dongo boo ci biir daara ji dafa am soxna su ko may cere booba woggu lañuy ñuy maye woggu sama baay nee na ma booba da ngay am ndeyi daara di ko taxanal dangay ngay am ndeyi daara di ko taxanal su tayee may la woggu cere baa mu may la wëyangiit baa mu may la ndës tay ñett yu doy waar a ngi noonu dana la may wëyangiit wëyangiit nag man xaw ma kañ laa ko géej gis xaw ma daa amatut xaw ma wëyangiit buñ masaa di lay cere li ciy nekk waye ngir joojee mooy la dujj la lu dujj la munta génn ci tame ba ay ay kol-kol yu ndaw la daan def mel ne eh, araw waye ngir jooju dañ ko daan may sa doom sa doomi daara wala bu noppee nga xar aw woggu may ko ko mag ñi leen yàkkalente woggu ci jéeg ji daan sëy te bëgg ngërëmul yàlla dañ daan fekk mag mu jigéen mu liggéeyal yàlla ba jeex su tàkkusaanee ñu xar woggu dem yët ko ko woggu suusal da ko daan denc ba mu woo mu koy dëbb muraate ak yeneen yi ca aju juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. daane leen may ndës tey ndës mooy booy booy tay cere ji ba fab ba fab morso boobu tayukaay ji def ko ci diggante inde bi ak ak cin li bu fekkente ni yàlla dogal na defoo fi morso da nga daan am ci mooñ gi sungu si nga daan wut tay ko coocu boo ko ci tayee nag bu ko cóolool li jàppee day lakk comme mburu day lakk comme mburu loolu lañ daan wax ndës loolu soxna yooyu nag. lu mel noonu lañ daan may seen doomi daara ji leen di taxawal am nag dongo sëñ Jibril bii boo xam ne lu mel noonu la séq ak soxna soosee ca day mag bi mu ko séenee muy jëqlante ak moom ay loxo ci lu demee noonu te mu wóor ko ne kii du ndeyam te du soxnaam kon xaw na koo araam sëñ Jibril loolu xaal la ko def ci ci taal jàngu ba la taxaw wax nañ ne keroog tari na fanweeri isi bi alquran ba yëpp ak ngir lan jéggulul suñ borom subhaanahu wa taala dongo boobu ñooñu nit yàlla lañ yoo xam ne ñu doy war lañ xam naa ñu ngi fàttali bokk yi nga xam ne ñu ngi topp ci jataay bi ñu ngi ñuy topp ci Assalaamy FM 99 point 0 ci rajo bi ñi ñuy topp ci seen YouTube bi di ñu am ci Assalaamy TV ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy bàyyi xel ci réseau bi ñoom itam ñu ngi ñuy am ci asalaami teewee ci réseau euh, Serigne Fallou Sylla marché Ocass képp ku soxla émission rajo bi yaa ngi jëlee ci réseau Serigne Fallou Sylla bu marché Ocass euh, foofu la ñu abonné euh, ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm rajo bi mi ngi nekk fii ci wetu kër suñ Cheikh Ndigal Fall en face kër sëñ Amdi Khady Fall góor yàlla ci étage boobu. ci la ñu nekk képp koo xamante ne bii soxla nga ñu di ñu woo ci commercial bëgg lu ñu yëgleel la seen marchandise wala nga bëgg ànd ak ñun mën nga ñuy woo ci 76 927 60 60 76 927 60 60 wala nga ñuy woo ci suñu numéro bopp 77 611 94 11 wala nga ñuy woo ci service commercial bi 33 943. 48 28 loolu mooy suñuy numéro seen bokk taalibe Fallou Galass Syll moo nekk ci micro bi Serigne Abibou Thiam moo nekk ci wàllu machine bi ñuy waxtaane rek nitu yàlla ku ñuy wax Serigne Jibril gasama nekkoon fii ci Daaru Alimul Xabir di taalibeeb Serigne Daam Abdourahman Lo doonoon jàngalekatu alquran bu mag boo xamante ni bii liggéeyal na yàlla ci alquran njabootam nekk fi di Serigne Moustapha Gassama te nag. li ñu wax ne mujj woo ko mu réer loolu dal na ko ñuy li liñ ci nab nabi ak di ko ci géem a génne mooy sunu waajur sunu borom dimbali na ko mu jaar ci loxol sëñ daam Abdourahman Lo wax nañu sax moom sama baay na ma keroog bi leen sëñ Mudu Maamun boolee moom ak sëñ Mudu Roqee ak sëriñ Amidoun teg leen ci loxol sëñ daam Abdourahman Lo nee na bisub keroog sëñ daam bi mu woo sëñ Jibril Gasa mu mu ñëw daf ko ne Jibril dañu sant yàlla waraat na ma. sëñ jibril na ko alhamdulillahi rabbil alamin neen loolu ko wax neen sëñ daam ne ko ñii de ñu andi ci sama kanam nee na fab loxoom teg ci bopp sëñ mu doxee ak bu sëñ amidun ne ko kii de maa jàngal baayam sëñ muudu maamun jàngal maamam maam Cheikh Anta tey jii ñu ngi ñu ko indil ma war koo jàngal xanaa bu wàcc doon am de war na maa wàcc nee na keroog sëñ jibril da ko ne ñii de moom wàcce naa la ci ca dogu naa ci ñoom seenu man alquran sëñ Jibril loolu la ko wax wàcce naa la ci ca dogu naa ci ñoom seenu man alxuraan kon gis nga e, sëñ daam sant na yàlla bu baax ndax kenn sutu koo fan ku jàngal baay jàngal maam jàngal sët ba te ñépp mokkal alxuraan ba noppi am barke loolu ak sant yàlla la ca loolu lu ci bari sëñ Jibril daf ko bàyyi woon sëñ ndaam Abdourahman daf ko bàyyi woon ci loxol sëriñ Jibril Gassama mu doon koo xamante ne bii ay mayam lépp mënee su ko waxtaanee waaye ku am ab taxawaay la ku am aboon taxawaay bu rëy rëy la ci ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi te daawut nopp lu guddi daawut nopp lu bëccëg gis nañ wax nañ ne kere bi yàlla dogalee mu war a wàcc ab liggéey nga xam ne ci kanam sëñ daam Abdourahman loola wàcc ab liggéey ndax moom digganteem ak wàcc génn àddunaam ak goog maam Seex menn at la ndax ñoo ay sorewuñ sax ndax ñoom ñaar ñëpp kii dafa génn àdduna ci fin 1940 moom mu génn àdduna ci atum 1941 euh, loolu wax nañ ne sëñ Modou Rokhaya nee na kër bi mu wàcceeb liggéey sëñ Modou Mamoun woolu na ma ndax booba maa ngi ci loxoy sëñ Modou Moustapha safurlaa dafa wax ne booba maa ci loxo sëñ Modou Moustapha waaye fekk naa ñu yóbbu ma gànnaar waaye bi mu jógee gànnaar ba ñëw nee na ci la ko sëñ Muudu maamoon na ko na nga dem daaru alimul xabir jaale ji sa sëriñ ba Jibril Gassama ndax faatu na sa ginnaaw 1941 la génn àdduna waaye gis nga ak génn àddunaam itam da nga ciy xamee liggéeyal yàlla njariñ li mu am wax nañ ne mbooleem li mu war a def ci bëccëg bi def na ko ba jàng waqafu alquraanam keroog fanweeri isi bi alquraan la jàng bi mu ko jàngee ba noppi tàkkusaan la ko tawat daane tawat tàkkusaan tawat laata bët di set génne na ko àdduna nga xam ne kon moom daanaka amul wàccaay ndax ci alquran moo mujj ci moom ndax kuy liggéeyal yàlla ba dara de set lu dul dem yàlla mooy ñëw jël sil la boppam loolu sama baay bi yàlla dogalee muy génn àdduna ci laa xame nit yàlla dëgg eh, bu dee liggéeyal yàlla ba dem jot li ko yàllay wan dama dama toog ba guddi ay trois heures de matin wala deux heures nangam jëm trois heures mu woolu ma galas ma daw ñëw fekk sama mag bu jigéen soxna Ndey Sile mu ne ma galas jàngal ma suuratu yaasin xaal bi ma ko fekk ak ni ma jekki-jekki na ma jàngal ma suuratu yaasin man damaa gàtt xamu fu yaasin tàmbale xamu Faatiha sax mënatuma koo tari ma jóg génn nee bi mu ne ma wut ba wut jeex day wut sëriñ bee ci gën noonu la ma ko waxee wut ba wut jeex wut sëriñ bee ci gën daal dina xawma kenn nag waaye Cheikh Sile mii moom am na sëriñ bi baat boobu la mujj wax génn àdduna nga xam ne kon ndakate ñoom ñooñu sellal seeni jëmm sellal seeni jëf jub tege ci siraatal mustaqim saa yu ñu demee ba war a dem suñ borom da leen di wan kër gën jëm ba da leen di leer naññ laajte nañuy génn àdduna loolu la ñuy teg toloo ci génn àdduna ak sëriñ Jibril Gassama waaye bu fekkoon ne daa génn àdduna rek ñu denc ko noonu déedéet sëñ daam Abdourahman Lo eh, keroog. jëfandikoo na loo xam ne néewaa nañu gis mu jëfandikoo ko ci ko faatu ndax bi ñu waxee na ko sëñ Jibril noppalu na moo ci jëkk waaye gis nga dafa jël xalimaam bind ab téere ba mu àgg mu takkal ko sëñ Jibril ci tànkam mu takkal ko sëñ Jibril ci ab tànkam yemut ci bindal ko téere takkal ko ci ab tànkam waaye dafa wut ñaar ñaari doomam ne kii taxawal ci bopp bi kii taxaw ci tànk yi mu ne kii tàmbaleel bàqara jëm si mareem kii tàmbaleel mareem jëm si minal jinnati wannaasi ñu jàng ko ba mu àgg ñu soog koo jëlee ci ñu soog ko teg ci jaat gi loolu defal nañ ko ko biñ ko tegee ci jaat gi ba indi ko ba denc ko ba noppi ba sëñ daam santaane ca lam cay santaane ba noppi daa taxaw wax ne jibril bi de ku ko gis tey xam ne ànd ak man jar na ko noonu la ko waxee ku ko gis fee mu nekk xam ne ànd gi mu àndoon ak man jar na ko daal di wax na noppaloon na ma day waaye tey jii suñ boroom noppal na ko noppaloon na ma waaye tey jii suñ borom noppaloon na ko kooku moo di sëñ Jibril Gasama yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla na yàlla dolli ay leeram yàlla na yàlla taxawu ak njabootam yàlla na yàlla bàyyil ko jamo bàyyi njabootam jamono sëriñ Moustapha ñu ngi ñaan suñu borom mu guddal saw fan lool gën koo guddal te gën a dolli sëg wér te defal ak njub ak alquran ak ju barkeel ci sa njaboot googu nga xam ne ñoom àndal tàmbalee ko ci sëñ ak mboolem ñëpp kon xam naa képp koo xam ne bëgg ngaa tàbbi ci jataay bi mën nga ñëw woo ci 88 828 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 ñu ànd ak euh, Serigne Abibou Thiam taalibe Serigne Abdou Dieng Balla Fally taalibe ndogal taalibe Serigne Abdou Karim Dieng Balla Fally ñoo ngi koy nuyu di nuyu Serigne Moussa Niass moom mu dendal moom it di taalibe Serigne Abdou Dieng Balla Fally ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar kon Serigne Abibou nga tegal ñu xasida ñu taaxeet lu bokk yi ci 88 628 53 53. abulan noo ko suuroo caafu nan soosu nan ceebu nanoo tibbu nan tabbu nan masarixan maxriban yaa gi kuuru fi gën yaa fi gënoo ruyu bon yàlla bañ ay laa taqaf bul yaa fi manoo wuy borom àll bee yi ñuy fulooroo maasindaaw nen du fii rokki dajoo doomi ndaa maa ngi suuru ngeluuru mandig leer wuute naag naan ngay ne njaay wuute naag bukki njuuroo xarnu bi yaa fi gën yaa fi rawoo baa mu mat wuute naag am suhuuru sëñ Fallu xarnu bii bastulam yaa ko fuloo faddulu na yaa ko mal yaay si looroo xarnu bii suñ jigéen ñaa ngi solo ay mbalang duñ xaroo tey mu sooroo xarnu bii yaa ko naatal bu yoroo beex beexil yow sa ay gee ko looroo sëñ Fallu xarnu bi wa tey barbare jërëjëf sëñ Abibou Thiam jërëjëf itam mbokki auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu ci 99 point 0 ak ñi nga xam ne ñoo ngi bàyyi xel ci YouTube bi ci Assalaamy TV ñuy bàyyi xel ci réseau bi ci réseau El Hadji Fallou bu marché Ocass seen émission ëttu mag ñi ñu dalal ñu doon ci waxtaanee tey Serigne Jibril Gassama mu sëñ daam Abdourahman Lo Daaru Alimul Xabir jàngalekatu alquran bu mag boobu. di ko sante borom bi subhaanahu wa taala di ñaan sun borom yal na yàlla dolli ngërëmul yàlla ci moom yal na yàlla yónnee ko barkeb alquran fa mu tëdd waaye yal na yàlla taxawoo ko barkeb cheikhuna ahmadul xadim bu jaar sëñ daam abdourahman loo mi mu doon jàngaleel te doon ko jàppale ci ndigalul sëriñ tubaa rëy loolu sëñ daam ab wax na ko sëñ daam nee na sëñ jibril day nappaloon na ma ci ndigalul sëñ tubaa lii ma yore woon waaye fee mu nekk yàlla dana ko noppal fa mu nekk ca dana noppal ak njabootam loolu bokk na ci li ko sëñ daam seereel mu doon nitu yàlla koo xam ne daanañ wax ne képp ku jóge ci moom ku jóge ci daaraam gën di ko bëgg gën di ko naw loo gën di dox ci àdduna di ko gën a bëgg te di ko gën a naw ndax xam ak sellam xam ak ak mën a jàngaleem ak ak eh, laabiram ci xam-xam ak laabiram ci alquran eh, ak teggum nangoo teg nit ci yoon ci lépp luy tax mu baax gis nga keroog bi mu jàngalee sëñ Mourtada moom sëñ Touba Xaadimu Rasuul ba sëñ tubaa mokkal bi mu ñëwee wax ko sëñ daam Abdourahman la nga xam ne da ko ne sëñ Mourtada tari na sëñ ko ne may naa la fasu naaru góor fas la ko may woo xam ne wenn fas la woon wenn fas ñëpp dañ ko doon soow ñu ne Jibril Gassama fas wi ko sëñ daam jox tey jii kenn mësu koo gis booba mi ngi mel ne ku maye ab 8-8 wala nga maye ab 4-4 waaye gis nga sëñ Jibril daa ca këram mu yenn fa ba ngoon jot. bu fas bi dee tuur ndox dañ koy taatan bu dee nefere dañ koy dañ koy jël nanguwut dara si ci ba na ba ngoon jot mu teral ko taraanga jëm mat sëkk fabaat mbàjj mu rafet lal ca demaat ba ci sañ dàmm mu ne ko defaat naa ko addi sëñ Tuubaa ñaanale ko sëñ Murtala mii suñ borom barkeel ko te guddal fanam gis ngeen kon mag ñi noonu la leen yàlla melaloon loolu eh, lu am solo la kon ñi ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen joxaat rendez-vous ci beneen jataay incha allahu rabbi eh, seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll moo nekkoon ci micro bi Abibou Thiam ndongal ndogal moo nekkoon ci wàllu machine bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa Bamba yi tey yaa magoo wal yaandu fi yóbbuy